ab kër gu nu abandonné si Touba guy mbind moo leen teg jafe-jafe yi ñu dund ndaxte barab bi ginnaaw ndox mi ball bàyyi ko suuf si indi fi ay ak ay jaan ak lépp lu mën a doon daal bu sukkandikoo si ñoom insécurité bu sax dàkk tax na waa koñ bi ñëpp a waa jafe yu ñu am fii nag mooy kër gi nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw di kër goo xam ne ay mbokk ñoo fi dëkkoon koñ bi jafe yi nga xam ne amoon na si wàllu ndox mi ak nab bi tax ñu bàyyi woon kër gi dem waaye bi ñu ko bàyyee nag dañ koo bàyyi ci façon boo xam ne dafa indil dëkkandoo yi nekk fii yëpp ay coono ak ay jafe-jafe yu méttee métti gis ngeen ko nii mu mel nga xam ne ñax mi da koo sax ba gis nga ko ndox mi noonu euh, jamono bu nekk noor ak nawet day am ndox moo xam ne day fees dell ak ndox daanaka fi mu toll nii sax xaw na indi ak ragal ci koñ bi ngir nii mu mel nii nga xam ne am na xale yi dañuy wax ne ay yeew ak ay jaanak ak ay yu nekk dañuy wax ne ma ngi fii loolu nag di jafe-jafe yoo xam bu ñu sañoon ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi ak waa dëkk bi ak eh, kilifa dëkk bi ñu dimbale ñu si ndax seeni borom moom dañ ko abandonné dem. waaw waxuma waaye fii ki fii duñ fi duñ fi ndax ndax ay yoo yoo xam ni ak ak yooyu barki démb dong la fi jaan génne. jaan fii fii waaw jaan. te waa ma kii ñëwoon nañ fi bëggoon ko waaye dañ ne woon fii duñ fi dugg ndax fii lu ne mën na fay am te wax na dëgg nag ndox mu yàggee mi alumat juróomi at. Serigne Modou Niang moom moo dëkk si kër gi jëlloo ak fii espace bi nekk moom nag la ko metti bokk na si robinet bu nekkoon fii si kër gi di di xelli 24 heures sur 24 mu doon fuy doo bu jéggi dayoo si yàqum ndox waaye sax nag. dolli si waat si ndox mi di bal jàpp na ni nag réclamé na ko fu nekk dem na ko wax waa Maawu Rahmati mi yor entretien wu réseau bi fii si Touba ba léegi am si la mu bëgg ndax dañ koo sofantal waaye nag man fi ma gën a mooy ci waaw Maawu Rahmati mu ñu yor waaw Maawu ñi nga xam ne ñooy defar te yu yàqu yi ndax bi ma ñëwee la 5 février laa ñibbisi la 11 laa fa dem de dimanche soo xoolee calendrier bi li ma la wax nga xam ne moom la 11 février dimanche la dajal dafa demee moo demee Maawu Rahmati biir euh, euh, fay jaay ndox neex ma ñu ma nun ndox mu neex lay jaay waaye da nga dem ci Pablo mu ngi ci biir dëkk bi ci 30 suñu Cheikh Bamba Liba fa la ne moom ñoom ñooy defar teewoo yàqu yi baa ñuy wax ko mu jël sama numéro jox ma ne numéro am ñuy waxante ma moom di waxante ma moom ma waxante ba am bis gars woo ma ne ma noo ngi ñëw ñoo seen seen deux cousins mooy euh, xamuñu tuuti L200 yi bi ñëwee ñu àndal ba ñëw fii ñu wàcc fii ci suuf taxaw xool ko moom la ñoom kon dañ ne wut ay gaskat nga xam ne ñi man dañ ma nax may wootante ñoom di woote ñoom mujj soo wootee Pablo moom Pablo ci man mooy dégg su ko kii mu ngi may dégg ma war su ma wootee du ma jot xam ne su ma ko léegi damay am benn numéro boo xam ne du ko xam ci laa ko jotee waaw maa man tey suba àll ngoon tey suba àll ngoon mu mujj ma ma waal ko ne ko su ma la woo jeex na léegi man naa def ay pexe su ma paree dem ci kaw ndax yéen lii mooy seen liggéey dañuy fi te ngeen di leen fay par weer di fay kaskat yi di fay ñor oto yi ak teewoo yi defar a ah kon lii moom su ma leen woo ngeen dagg teewoo polomé ko loolu yomb na man ndox mi moom ñoom seen ñooy dagg ko polomé ko mu jeex jàpp nga ne bu ñu arrêté ndox mi sax fii dootul amati ndox. ah dana wàññi ko moom ndax ndox ma xam bu guddee ba doon day yokk waaw ah, bu guddee bu ñëwee yokk lool te war na nawee na muy xel ndox maa ngi ni ñeenti at yi moom ndox jógu fi xelal ah, kon gàllankoor kon ñoom seen liggéey moom des na ah dama ne moom lii moom su ma amul pexe ab ma ab naa ci sëñ Muntaxa moom ndax moom moo ndox mi mooy fay mooy def lépp kon lii ñoom ñoo ko war defar waaw ah, su jàllee nag ñoo ngi ñaan ndimbal ci waa Touba ka Kanam buñ ak commune bi fu waaye ñoo laa ñëw dimbal ndox mi génn fi ndax lii moom waaw dansé daal buur daal waaw moo tax boobu léegi maa ngi dox ay jéego waaye li sax moom gënu woon waaye nag damaa jaaxle dëkk bi jaaxal nañ waa koñ bi jaaxal nañ koñ bi daanaka mën nañu jàpp ni kër yëpp am nañu jafe-jafe ñenn ñi ñoom taxu nañu bàyyi seen kër carrément ndaxte mëntuñ fi dëkk ndox mi accaparé na ko ñi fi des ñoom ñoo ngi daw si ginnaaw yi ndox suuf yi nekk fii lu si mel ni ay yeew ak ay jaan ak yeneen rab yu bon yooyeeg yëpp mën indi ay jafe-jafe seen wàllu santé moo kër gi kër sama mag la kër gi kër sëñ Ibra Gay la kër gi kër sëñ Taala Jóob la waaye kër yi nga gis yëpp genn kër gi àgg na ci yàq ko ndax comme ni la ko sëñ Sidi expliqué woon kër gi taqaloog moom mat na ñaari ndox mi da koy dugg boo demee fee ci kër sama mag bi fii ne sëkk nañ ko ba mat ci kaw un mètre cinquante yoo xam ne dañ koo foyete pour ndox mi du fa fële ndax fii bu ndox mi ñëwee dafay ko nab bi sax dëgg la waaye nag ñàkk a defar gi ci li ko yokk la. bare na nag si Touba mosquée yi ay kër yoo xamante ni ndox mi moo ko nangu at bi yëpp bu dee neuf mois yi jàpp nañu ni nab bi moo leen di sonal nangu yenn si ay kër wala sax ndox mi taafu ba léegi yeneen trois mois yi moom nawet bu ñëwee day gën a métti moo tax nag bëgg nañu ñu indil leen solution définitive.